salaamaaleykum dëkk bi nag tàng na waaw sénégalais yi génn nañ tey xeex nañ xuloo nañ mais dara waaw yàlla baax na yàlla na yàlla saafara lépp waaw Sénégal yépp mais nag damaa jot benn nouvelle boo xamante ne nouvelle bu ma naqari la barki alxuraanul karim si Mamy Cobra ak Mame Ndiaye Savon benn dulkat international dulkat bu dulkat international la la ma Mamy Cobra envoyé ay ojo yoo xamante ne audio yàqante la audio yoo xamante ne sëñ Bada duul ndekete sëñ Bada duul duulkat waa ji mooy duulkat waay waa ji mooy mën a duul déglu leen audio yi waa ji dafa envoyé audio Mamy Cobra ne sëñ Bada moo ko ko sëñ Bada waa ji ne ko dama la yó euh, euh, Mamy Cobra ne ko dama la yóbbu cybercriminalité waa ji dagg day kii bi xo leen audio yi nee nañ sëñ Bada moo ko ne ah Mame Ndiaye ak Mamy Cobra dañuy génn Mame Ndiaye dafa tas si suuf. waa ji ku mën a duul la Mamy Cobra nag mi ngi koy waajee dafa dagg piisam dafa damu piisam déglu leen waa kat international la te su ma ko jotee déglu leen. bi lan nga ko wax nga li lan nga lan ngay woote. voilà man boo gisee ma wala xam naa ne nekkoo jigéen bu ba nekkoo jigéen bu la parce que sa nga mais lan la laa wax lan nga doyee sama numéro man li nga may wax noonu yëpp maa la ko gën a xam man. lan la kat international nii waa ji tas ko ci kër la. waaw. man site laa ana site ak duur ana site Bara woo ma téléphone. waaw Bara moo ko ñoom a ay lesbiennes léegi ay a jigéen lañ jël leen bëggoon nga jël ma ma ko wax xaw ma ko seex ma moom dara gis naa la la woo wax loolu ko wax yow dégg nga may woo sëñ bi lépp looy wax na leer man du ma ñeneen ñi dégg nga nee na sëñ Bada quatre jours a ngi nii mu koy woo man xam naa ne dama bon dañ ma koy wax ñoom. déglu leen kii dulkat internet déglu leen bu baax déglu ñaar damay xeex ci saa yi rek baati man aw ma kersa ci dara lépp loo may wax nay leer. man comprendre leen dégg dégg liggéey ndeyam déglu leen man lépp lu may faj ci suuf laa koy faj. dégg ngeen damaa bëgg lépp loo may wax na leer ndax bëgguma def loo xam ne damay tooñ bada après est-ce que yaa ngi dégg. waaw. Eh, dèjà xam nga waaye bu ma la bëggee xam balaa cinq heures nii. man xam man comme daal xam si duur kat. bu ma la bëggee xam balaa cinq heures mën naa laa xam. waaw non non jaruma lay woo xam nga yow yaa fi woote ñun doyewuñ la dara man soxlawu ma la mais yow yaa woote ne xaw ma ba moo la ne maam Ndiaye Savon dagalaaj maam Ndiaye Savon nangam la. maam lu mu ci mënti doon mu ngi na ko kii mu mun a dul seen ñàkk fayda ay sët laa yor ay nangam laa gis nañu fi yoroon sët bu mujj gi dañoo daw dem Europe. ndax dañ leen ci kaso bi lan mooy lii xale góor jantal ñu leen léng ngar mais yor nga sa sit xoolal li baax nga ko bada xam nga ni wérul te bada du la sant n'importe quoi ci man ndax bada kay du ko def bada du yak nit mais pour ko sosal ndax kum ci mënum ci mënta do nit man gadd na nit ki ñew na sama place xol na ko xam naa li mu capable tax xam na ni amna na fu ñu jaar kon du duggaat ci sama gis rek waaw ba tay ma ngi lay déglu da nga fee dara lu wax njariñ ak lu importance Mereka makan xam ne badam mi nga bëgg a sosal nii man daf ma xaw a yëm ndax man. du sosal badam ñam na ma ma. sooy dul doo dul. xam ah loolu dëgg la mais badam xam na fi sama loxo àdd man. yow xamoo ma mën ngaa nekk ci réew mi am sit xamoo ma doo bàyyi dugg yow nooy nekk ci réew mi am sit xamoo ma. non non mais buñ ne xaw ma la man man ko braan ñëpp ma xam ci réew mi ñëpp ma xam ci réew Dè yi doul motak, dè yi doul. Mami kop rami, kop ah. rami. Dè mè mè. Mami fè yi dè patastik an, dè mè. Kam la ni? Oof. kii moo kat. dégg ma li nga wax mu ne mami. am jëkkër. waaw. loolu ba leen xewal léegi mooy gën a gën a góor jigéen ñi di leen dooleel. moo tax tey. mami amul jëkkër waaye day dégg jigéen. mami Cobra di jigéen nga ni mami Cobra jooy la. kii moom kii duulkat international la kii nii duulkat international la te su ma xamoon turam tey doy. duulkat international la ñu nii kii duulkat international nee na mami Cobra. dem leen ko. dëgg laa dina ko baax. leen ko. dégluwaat leen bu baax a baax. mais lan la laa wax lan nga doyee sama numéro man li nga may wax noonu yëpp la ko gën a xam man lan nga ba ndax damaa bëgg man lu leer. man lépp man lu leer laay doon te damay gën a bëgg tey. waaw. man site laa yor. yow laa déglu. noo eh, xam nga yow duul Thiès ak Mame Ndiaye Savon mu ne Mame Ndiaye dafa divorcé mais Mame Cobra amul ci kër ñoom ñaar ay lesbienne léegi ay góor ci lañ jël leen formé ci biir si kon kii di ma

gis nga mi ngi nii fay na téléphone am dul dul lu rëy fay nday téléphone am gis na piis bi waa ji waa ji mooy bi sëñ Bada du dulkat kaabaa ngi noonu nag sëñ Bada nag xoolal noo koy lijjantee parce que kat dulkat la ja jaa jëf